asalaamaaleykum tey jii dañu ñëw fii ci Biscuiterie yi def fi benn doxantu xoolaat suñu militant yi suñu xarit yi suñu mbokk yi suñu responsable yi tamit ñu dëkk Biscuiterie yi pour soññ leen ci jogante yi nga xam ne moom lañu ñu jëm muy la présidentielle de 2024 ñu ñëwoon tamit jaar ci suñu baay suñu xarit suñu conseiller ki nga xam ne defe naa Sénégal bi yëpp xam nañ ko mooy El Hadji Mansour li ñuy tax a jóg mooy soñ suñu militants yi ci pare parrainage ndax comme nee nañu ci la bokk léegi balaa nga soo déclaré sa candidature ba noppi da nga war a def parenage loolu ñoom ñoo ko fi tëral parenage boobu soo ko jàllee ci ngay soog a nekk le véritable candidat wala présidentiel ñuy expliquer nag ñi nga xam ne ñooy suñu responsable politique local ñu jublu ci parrainage bi ba li nga xam ne moom lañu ñu laajte ñu dem ba weesu ko defe naa Biscuiterie bii fii mooy suñu base boo xam ne jëflante nañoo waa Biscuiterie yi loo xam ne incha allah yaakaar nañ ne Biscuiterie bi suñu yàlla defee ba ñu jàll parenage ba dem ci candidature yi yaakaar ñu ne dinañ ko gagné incha allah ñuy wax ak nag sénégalais tey Sénégal fi mu toll. dafa nekk pour la première fois un président sortant mu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati seen loxo am yéene ci Sénégal yéene boobu mooy ku ci nekk da nga jóg pour defar Sénégal naam képp koo xam ne sénégalais nga constitution may na la waaye li may ñaan opposition bi mooy nañu daje. ku ci nekku yaakaar ne moom rek su demee dina gagné le parti au pouvoir nax nga sa bopp lenn lañu mun a def pour daan leen mooy ñun ñëpp opposition bi ñu daje nekk benn say mun nañu sax suñu nekkee benn say quatre wala cinq candidats dem ku ci rëy damay faral di wax nii lu yàlla na mu war na lu mu eggale daa jot waaye lu jotut yomb li nga bëgg ak li yàlla dogal bu ñu bokkee daje gëmal dogal yàlla te ñaan li nga bëgg ndax ku xam dañ laa wax ku egg dañ laa gunge waaye ku ñeme it dañ laa déey borom alal dañ koy wekk waaye borom xam-xam dañ koy rus ku ñu rus ak ku ñu wekk nag ku ñu gunge nga ñeme. professeur président ñëw nga ci kër goo xam ni mu laay wax na ko léegi di une fierté nationale. di koo xam ne kenn dootu ko présente sur le plan national kenn dootu ko présente sur le plan international tey jii ñun bu ñu demee ba kenn ku ne ginnaaw yàlla boo amee salaire ci rajo wala nga am salaire ci télé da nga koy sant El Hadj Mansour Mbaye di président de tous les communicateurs traditionnels ànd ak Abdou Aziz Man Fama mi nga xam ni mooy bras mooy léppam sës ko rëkk te rëkk ko benn yoon fépp foo xam ne El Hadj Mouhamadul Mansour Mbaye mënu fa dem su Abdoul Aziz Mame Fama demee dafa mel ne El Hadj Mansour Mbaye moo fa ne kon kàddu yi mu ratal jëmale ko ci professeur président Arona Coumba Ndoffène Diouf kàddu la yoo xam ni dafa jóge ci xol te lu jóge ci xol ci xol lay dem kon ñoo ngi ñaan laat suñu papa El Hadj Mansour Mbaye yàlla na fi yàgg ñoo ngi koy ñaanal la taalibe bi ñaan loolu sëriñ bi dafa ne jàkk sëriñ bi ni ko yàlla nga am téeméeri at ak fukk waaye foo tourné gis ñu papa Mansour yàlla na nga am téeméeri at ak fukk gis ñu papa Mansour à vous nee na mu ngi ñu fi toog ñëpp neen du nuy doomam ju baax ji di xaritam di nitu démbam nee na kër gi mu ñëw miin na ko neena na këram la nee na teraangaam nagam teraangaam nee na ñëw na fi ba tàyyi nee na su tam xarite nee na nagam fii la yeew biraan xam na ci dara nee na su tabaski jotee nee na fii lay ñëw enveloppe fii lay ñëw bureau xam na ci dara nee na di mbokk démbam di nit ku yàlla baaxal nee na kontaan na nag ci ñëw bi mu fi ñëw ndax moom nee na daraam mosu ko ëmb nee na kon su fi ñëwee tey ànd nit ñu baax ñii mu àndal nee na ñi fi toog miin na leen de nee na su fi masaan di ñëw neena na ñii lay àndal nee na soppul ñamu daan àndal nee na ñee ku ci nekk ñëw nga ànd ak moom def ci teraanga bu rëy nee na li mu lay Abdoul wax nag di porte-parole nee na doy na sëkk neen nam ko bëggee woon démb mu def ko baay mu def ko doom mu am lu ñu seq nee na loolu moo ngi fi ba tey nee na yàlla yàlla guddal fan yi yàlla yàlla yokk sutura si ci daraje Cheikh Ahmed Tidiane nee na sa ñëw bi yàlla bu mu doon sa mujjug ñëw ci kër gi nee na li nga bëgg yàlla buur bu baax la waaye Abdoul Aziz wax na la ko léegi neen dafa jano kilifa gu baax bi ñuy wax président Abdoulaye Wade kilifa bu baax yóbbu ko ci moom ku ñuy wax Papa Diop ancien maire de Dakar président Wade bi mu waxee ba pare mu ne ko yow kenn gënu la mu ne ko réew mi 15 millions d' habitants amoo koo soxla ku dul Alaaji Mansour Mbaye ne yow mi président Wade yaay nit ku baax ne maa ngi sa ginnaaw nag républicain la waaye nag Abdou Diouf sama xarit la sama mbokk la Tanor sama mbokk la sama xarit la waaye ñoom ñëpp nag maa leen njëkk du Parti socialiste. Je suis socialiste depuis 1945 avec le président Lamine Gueye Sessoyo socialiste boobu nag ci laa bëgg it dund ba dee ci nee na Abdoul Aziz wax na ko waaye nag kii professeur Alioune Alioune Couba Ndoffène Diouf président soo bëggee gis nit ku baax nit ku yaru nee na moo ngi nii yàlla mi nga xam ne dara tëw ko yàlla bu mu doon suñu mujjug toogaay nee na ñu fi nekk ñëpp moo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm nee na kon nag nee ñu wéeru ci guy gu dul daanu mooy sunu borom tabaraka wa ñu ñaan sunu jataay bi yàlla bu mu nekk sunu mujjug jataay neen na ñu jàng faatiya ak falex ak naasi ak salaatul faati nangu leen ñaan amin ya amin ya yal na ko yàlla nangu Chérif ñoo ngi lay nuyu ay dara na lu mu doon laata moo toog place ndono loolu la bàyyi xel mhm. ba tey mu gën a xam boppam ci taxawaayam ci biir réew mi moom ci cosaanam xam na li mu doon loolu mu doon nag moo taxoon mu war a jàmmug ñépp mhm. mu teel koo xam loolu mu doon moo tax fu teraangaam mën a àgg mu yóbbu ko fa ndax mën a jàmmug ñépp kër gii nag nagam ñëw na fi xaramit ñëw na fi hmm. teraangaam ñëw na fi waaye yooyu yëpp mu fi indi fekk na ko fi waaye bosam dafa am lu mu àndal li bosam àndal mooy yar gi mu yaru wan ko ko moom ba pare nangul ko kii toog yàllaa Mansour ku ko xam-xam ni socialiste waaye nag mu mag du yàq mboom hmm. moo tax ku nekk mën naa dugg ci këram boo fi ñëwee fekk fi sa bopp parce que moo bindoo noonu mm-hmm. mu ni kii ñëw fii day tey du bis bi duguleet teraangaam gëju fi jugu fi xalaatam yaram jugu fi te as gor bu yaroo lu mu lu mu séntu mën na caa teg loxoom fii nga ñëw nag mooy këru mag olof yi nee nañu mag moo jaar ci àddina ba jàll te àddina manding la boo ci bëggee jaar foog nga wax ak mag mu mel nii moo xam fi pakk yi nekk fi rab yi génn guddi nekk mu mën laa teg yoon ba nga àgg fi nga bëgg a comme yàlla nga fa yàgg beneen bi ci des gërëm ñi nga àndal ñii nag ay kanam lanu yoo xam ni seen pas-pas ak seen yaakaar lanu yeew ci yow ba boo jógee ñu jóg heure reer ñu bàyyi ko fa génn bàyyi fa seen i jëkkër ñiy góor bàyyi seen njaboot ñi ndaw am yaakaar wékku ci yow foo jóg ñu jóg kon ñii am na nañu pay mu ngi leen di gërëm bu baax mooy wax rek la maam Seydi Hadji Malick waxoon daf ni ku mën a teral mag teralal mag ku mën la teral mag bàyyil Malick teral mag ak nu mag mage kon teral nga jooju nga yëkkati indi ko ci moom nee na mi ngi lay seedeel ni kontaan na ci lool di rafetlu li nga def nag lu rëy la ci moom ndax ñi fiy jaar ñëpp ku ci nekk xam nga fi mu bokk te réewul nga jox ko cër bi mu jox ku yàlla jox cër na nga jox ko cër wàcc nga hmm. yàlla na laa la jox cër loolu la waxoon ni bu ma ñëwee naa la ko wax seddeel la ko hmm. ci sa mbaax ci sa yiw waaye ci sa xam-xam ak sa dugg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf tax tey mu wax ni comme daa gont di def dox mbokk mu ne day ñëw fii tey nuyu la sargal la tatagal la waaye tàllal la ay loxoom ngir nga ñaanal ko ndax daa dëgmal loo xam ni jàpp na ni sa ñaan ak sa conseil ak sa kàddu gu rafet mën na ci dara muy lan nee na moom kat candidat la élection yi ñu dëkkmal muy présidentielle 2024 te nee na diirub ba ko jàppee ba tey nag mu ngi ciy dox mu ngi ci wax mu ngi ciy def kemtu lay kattanam nee na moo tax tey jii mu ne na ñëw fi yow yëgal la ko waaye nuyuwaale la sakkuwaale ci yow ñaan di la wax ni fa xolam nekkoon ci yow ak xelam dara jugu ci te dara soppiku ci te dara du ci changé nee na baayam nga soppeem nga wëlëreem nga xaritam nga am di jàmmam nga moo tax nag mu ñëw fii tey joxe kàddu yu sell yooyu kàddu yu jub yooyu kàddu yu teraanga yooyu lépp lu ci dëng ñun ñii la waaye waxee na ko waxin wi gën a sell wi gën a rafet wi gën a jub wi gën a foor tànka mi daal tey ci gàttal tànki dox mbokk la tànki doom ju ñëw ci baayam tànki soppe bu ñëw ci soppeem tanki nit ku ñëw tàllal baayam loxo ngir mu ñaanal ko ndax li ñu dëgmal ci kanam soxla na ci ñaan lool te sax ñaan sàkku na ko ci ndax mën na ci dara loolu moo doon kàddu yi ñu nañ ko tijjee di wax ni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi tub bu baax tey jégalu lu dëng man la waaye lépp jub na tarafet jërëjëf El Hadj Mansour nee na lim ciy yokku nee na mi toog daanaka moo leen ngénte nee ci ëttu boppam tamit lañu ñu yaroo yaram nee na ci ay waxam yu rafet ak yaram bu jub nee na ci loolu rek la ñu ba si fi ñu yegg si tey nee na bu demee ba am fitut jóg tey jii di laaj réew ci élection yi ñu dëkk dëkkmal nekk candidat 2024 nee na bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ko ci may fit te ñoo ko dëgëral te ñoo ko taxaw ba tax mu am fit woowu musul jóg di wax ñun ñooy kan. na musul jóg mukk ci di wax ñun ñooy kan. musul jóg tamit di nga xam moom la ñu te nee na musul jóg mukk ci baatub di leen yedd di leen ñaax waaye di leen xamal taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawoo réew mi saa su ne ak waxtu wu ne. fukki at ak ma def ci cabinet son le président Macky Sall. nee na fukki at ak benn yi nga xam ni def na ko ci cabinet son excellence président Macky Sall muy taxawaay bu rafet lool bu ñëpp mën a seede ci digganteem ak président de la république monsieur Sall nee na amut lenn lu ci ump baayam bi toog di El Hadj Mansour Mbaye amul na amul lenn lu mu mës a bëgg a def lenn lu mu mës a xalaat fas ko yéene yëkkati te ñëwul ci kër gi toog fii tàggu baayam bi toog El Hadj Mansour Mbaye amul na tamit amul lenn loo xam ni xibaar la buy tukkee ca kër ga kenn di ko yëg te du njëkk a toq ci noppu El Hadj Mansour Mbaye mii toog amiin nee na keroog bi waajuróom wi nga xam ni mooy waajuróom wu jigéen génne àdduna yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana nee na El Hadj toog la mu jàppoon lépp da koo bàyyi keroog moo fa nekk ba dëyal waajuram wu jigéen dëj ba ba mu yegg. te nee na noonu mu ko taxawoo moom président Arona Coumba Ndoffène mii toog El Hadj Mansour noonu la taxawee président de la république monsieur Macky Sall ak président yi ko jiitu tàmbale ko ca Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade waaye noonu it la taxawoo Sénégal gi yëpp. ak atu këru diine yépp président Arona nee na président Macky sàll nag def na waruwaayam def na fi fukki at ak ñaar liggéey ba xëy tàggoo war a dem lam fi tàmbali woon nag moom président Arona mii mu am yéene àggale ko ba senegal gépp xam ni tàmbali bi kat am na lu ko yeggale nee na loolu rek mooy yéene moo tax mu ñëw fii tey sàkku si ñaan El Hadj Mansour sa doom sa soppe sa wëllëre président Arona nee na mu ngi lay gërëm ci dalal bi nga ko dalal ndax nee na biir na ko ni jot gi bëriwul gan ñi mën nay bari yitte ji bari lool waaye teewul saa boo ko gisee bàyyi lépp loo jàpp toog wax ak moom ba keroog muy dem boo sañoon du fi gaaw a jógee ñu ngi koy euh, mi ngi lay delloo yëgalaat ni yëkkati na loxoom di sakk nga ñaanal ko te gunge ko ci leen rek moo ko yitteel laaj kaddu askanu Sénégal élection président 2020 Macky sàll am te yow nga yéene ko réew mi. nee na mi ngi lay tàllal ay loxoom nga ñaanal ko waaye yemu ca nee na mi ngi lay jox noppam akum xelam ci xel mu rafet mi la yàlla sédd yàlla na sax nee na lan nga ko ciy digal ak la nga ciy dolli ak la nga xam ne mooy yoon wu jub wu jekk wu yaatu wa nga ko cay teg ci loolu rek ca la fas jaar te noonu rek la fas yéene doxee du def lenn loolu ump nee na mi ngi nuyu monsieur Mbaye mi nga xam ni doon Abdoul Aziz Mbaye di sa porte-parole di ku la jege lool suma waaye nee na mi ngi nuyu yaayu boppam soxna dégéen mi nga xam ni mi ngi ci kër gi waaye nee na mi ngi nuyu njaboot gi yëpp génnewu ci boppam ndax njaboot gi kat moom mi ngi ci biir te noonu nga uufee njaboot gi yëpp moom mu jiitu ci njaboot gi nga uuf nee ñi mu fi àndal ñëw fii tey muy délégation bi mu fi indi waa cabinet la àndal ne leen damay ziyaare ji sama baay sama wëllëre sama soppe El Hadj mbay kon kenn ci cabinet bi du fi des ñëpp jóg ànd ak moom nee na allahuma salli ala sayyidina Muhammad mi ngi lay ñaanal nag nga dund at yu bari te saa bu ñëwee fekk la fi darajay rasulullahi barkeb alhaaji Malick si mi nga xam ni moom rek nga gëm moom nga ci toroo foo jëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu